ñu bokkoon kër à l'âge de dix ans fekk du sec jóge na tey ba Grand Dakar di ñëw Fass yaayam dëkkoon sama kër maam Ndey Kati benn anecdote rek xam nga du sekk yaayam a ko dàqawee sama tante Ndey moo dàqawee sax Youssou Ndour gisuma benn moroomam boo xam ne yaay du sec bu ne ah. ñëppay génn boobu temps du sek yaayam jooj la doon moo tax mu mën a woy du sek bi muy am 9 ans même pas fekk ne mi ngi woy bu yaayam xaacoo mu pellal ko mbaaral ko wala mu mbëppal ko kooku mooy du sekk di ko jàll senegal gépp di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tey du lamb rek a ñàkk Sénégal gépp a ñàkk rawatina askanu ngéwél parce que ci askan wi daf cee wone boppam mën a way bëggi way ak war way bokkul bi ko yàlla defee woykat ba pare da ko man ba ñëpp xam ne man na ko mu di ci bëggal ay doomu aadama yu bare bare bare motax tax yal na ko mande teru. teeru ku dem ba bëgg a jël doom may la ne la suma ma nga am jabar sama kër ah ñu partager yu bari ci histoire lamb bari na lu ma ci wax daanaa ñëw mu di ma dugal làmb di ma dugal làmb di ma dugal làmb ba nyak ma dem nyak duggal dugal sama nyak dul su may ak lu mu ñak ñak ñak ñak jot lu mu ñak ñak jot suma xewle dina ñew suma may lu mu ñak jot ak heure bëmbim daan yeewu mais dina ko jaxal mu déplacer wu ñew kalaaf bi nag dëkk bu ñu mës dem gason ñu ñaar lay boole nekk ñu ñaar lay boole nekk bu ne nee kenn mënu bàyyil buur mën na maa dëkk ak moom Casamance Kaolack yëpp yaakaar naa fa la njëkk waye waat way bii mu doon way muy wayu jabu sekk bi waali faayaama ci kalaafu kii la ko fentaat jour boobu way ko fa di wax nag ne man naa seere ci moom ne nit ku rafet xol la woon nit ku laabir la woon nit koo xam ne ñaar rek ko daan taga xeex muy nga newal jigéen doole ci kanamam wala nga néewal xale xale doole ci kanam. génération yi wooyu yëpp tey ñëpp du Seck lañ copier parce que moo leen fi jiitu muy ñoom Youssou Ndour rek ñoom ñëpp du Seck leen jox fit du Seck daf ma daan wax mais Hippo ma ne waaw mu ne Youssou Ndour maa ko njëkk a bu studio mu enregistré. dimanche bële passé keroog bi jokkal di bëri Mama Lamine laa mujj a moom ca làmb ja bi ma ne ko mais yow da ngaa feebar bi ñëw làmb ja xam nga lu ma wax dafa ne nu du toog bu ma toogee njaboot gi fu ñu jëm kon kooku njaboot a mu doon jóg moo tax ñun commencé ko ci man ak ipongaa rek ku doon ku ne nañuy jàppale bala ñu fay jóge loo am nga tane ma di ma dimbale su ma la tanee di la dimbale nit ñi nañuy dimbalante dund bi boo dencee ma jox la benn masala waa léegi yow fexe nga ba am un milliard yàlla may la quatre-vingt-dix ans est que di nga ko lekk ah dañuy jàppalante te yàlla tax kër du sekk dem na dafa noppalu ko ji mais génnul àdduna ndax bàyyi na fi loo xam ne tey ku ko déglu bég ku ko déglu jàng ci xam-xam lu làmb gépp nag laay wax du sekk daal yàlla na ko malayka mbir man de teeru nekkee ci àjjanay Seydina Mohamed ndax ku bëggoon way jur la way juram la woon waaye ku bëgg Serigne Touba ak Cheikh Ibra Fall la loolu mën naa koo waat man kon nag yàlla na ko yàlla xare àjjana fa mu jëm yàlla na ko gënal fa mu jóge mais nag ku bëggoon njaboot la kon nag tey jii li mu fi dese ak askanu làmb ak ñi nga xam dañuy def lu baax ku ci mën taxaw njabootam na nga taxawu njabootam